façon yëkkati sa bopp façon grandeur bokk na ci li ci gën a kawe mooy noppi ci jamono joo xam ne ñu baree ngi doon xaar ne da nga explosé wax def nañ la lu ko jar wala wax nañ la lu ko jar wala am na lu xew luñ jàpp ne jaral na la nga coow coow lu bari mbaa nga def yëngatu yu bari ee eh, nga njuuy nit ñi nag daal di noppi bañ wax loolu day damm kàttanu ñi nga xam ne ñoo jublu woon di la wut am na ñoo xam ne dañuy def dara amuñu ci benn soxla mais dafa am kenn rek kuñ ci wut léegi nag bu boobaa boo ne ceel bàyyi ko mu jàll mel ni ku ko faalewul mel ni ku ku ci mënul dara fekk mën nga ca dara danga caa buggut a def dara nee ñooñu dañuy luum loolu ñuy wax luum la ñuy def danga tëj seen gémmiñ danga leen a dóor te sa loxo laalu leen bari na fu nit di coowe ngir faj dara daa xamul rek waaye bu noppi woon ci lay gën a gaaw a faju waa kay loolu lañu xikma bindi woon tey guddul mais xikma bu am solo la bu ko seetluwaatee da ngay gis ne bari ci jamono lu xew te dafa ne tell ki njàkkaar lool daal ni bërët moom it daal di wax mbaamu réaction ne réaction bu yëngatu bu xumb loola waral ñu wëlbati yëf ya ba këpp ko ci kawam am na koy joteel mu tooñ la ci suuf ñaar yëgul ñett yëgul soo ne cell réglé koog moom dana dem ba reconnaître ne moo la tooñ waaye fekkee dangaa jug coow ko ñëpp am ci yoon yow mi njëkk a dégg bootul tooñ ko ci yow lay mujj loolu yépp nag day tuuti niveau di kenn nit walla muy niveau bu yaatu di mbooloo ak mbooloo wala muy benn euh, force bu mag ak moroom ma mu mën a rëy mbaa mu tuuti waaye lu bari la mën a yàq wax te wax jotul wala wax ci foo xam bañoon faa wax a gën te yàq lu bare bare bare bare kon loolu rek xikma bi indiloon tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm bi jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah